mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo di kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun tey nag ñi ngi fii nga xamante ni moom mooy unité cinq parcelle certifié ki nga xamante ni moom mooy euh, Zeyda Aram juuf euh, di euh, soxna soo xamante ni dafay yëngu ci seet waaye tamit dafay yëngu ci ñaan ñu war a seq moom waxtaan waaye balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu Dakar Net ñu ñëw ci yaatal bi Zeyda Aram maa ngi nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di fay in Dakar net yëpp nuyu naa leen ziyaar naa leen beneen yoon di nuyu waa senegaal yëpp kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp maa ngi leen di nuyu beneen yoon di nuyu samay taalibe yu nekk ci bitim réew ak ci senegaal yëpp di leen nuyu di leen uh, ziyaar di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaanal Sénégal jàmm yàlla sotti fi ndox bu sedd guy ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi alors tey li ñu war a ubbee waxtaan bi may dañuy waxtaan ci wàllu seet euh, lan nga ñu mën a wax ci wàllu seet bi ngay yëngu. waaw seet nag euh, dafa bëri ay façon hmm. bëri na tamit ay xeetu seet. Hmm. ku nekk ak bi nga mënee man nag damay wax ne ci pettaaw laa njëkk. Hmm. balaa dara moon pettaaw moo nekkoon sama euh, xam-xam bu ma njëkk am ci wàllu lasaraar mooy xam-xamu seet pettaaw. ginnaaw gi nag jàng naa yeneen façon seet jàng naa ramlu jàng naa tamit seet si ndox. wante nag pettaaw moom lépp loo xam ne wax naa ci ni dara dinaa toog une semaine wala un mois borom woo ma ne ma yaa sey daal li nga ma waxoon yëpp gis naa ko soo liiree sama ay audio yi ñu may envoyé wala koo xam ne sax dafa may woo direct macha allah waaw seet moom wax dëgg yàlla yàlla may na ma ci moo xam da nekk bitim réew wala da nga nekk fii ci Sénégal euh, l'essentiel daal mooy nang ma woo nga envoyé ma sa tur ak sa tur yaay ak at yi nga am dëkk bi nga juddoo. lépp loo xam ne nekk na ci yow incha allahu taala dinaa la ko wax waaw. Euh, euh, euh, Seyda Aram Diouf seet bi maanaam seet bi est-ce que comme am nit ñi dañuy faral def naan nit lu mu seet lu mu gis rek da koy wax. Mhm. ku mu baax ku mu safaan. Mhm. ndax yow léeg doo gis dara nga gis dara mu leneen lu xaw a yéeme la luy ñëw. waa xam nga waaye boo xam nga mën nga seetal nit ki nga gis ne kii dafa war a faatu yàllaaw. Hmm. waaye nga defal ko ñaan. Hmm. nga tegtal ko sarax yàlla dimbali ko parce que sarax day fanq lu ne looloo tax ñu naan seetlu parce que di nga gis ne bureau bi danga fi doon liggéeyee ñu war la dàq wala nga war fa am ay problème ay jéey yu fa war a am nga saraxe yàlla musal la ci parce que sarax moom dafay yokk fan ku nekk xam na loolu kon moo tax nit di seetlu biddiwoom fu mu toll moo xam safaan ba la wala lu baax la bu dee lu baax la it nga yokk sa lu baax loo doon def bu dee ab safaan la war a dalit ñu tegtal la sarax nga def ko yàlla dimbali la wala ñu defal la ñaanit yàlla fomm ko loolu yëpp ci seet nga ko mën a gis moo tax ma ne la seet mooy port ñaan képp kuy ñaan yàlla bala ngaa ñaan yàlla da nga war a seet kii may seetal biddiwoom fii la taxaw pour nga mën ko defaral ñaan parce que koo xamul fan la biddiwoom nekk wala biddiwoom ndox la wala biddiwoom safara la wala biddiwoom ngelaw la wala biddiwoom suuf la kooku mënoo ko ñaanam parce que bu fekkente ne kuy takk sëy la war na mën a seetlu ndax ngelaw ak safara ñoom ñaar mën a suuf ak ndox ñoo mën a ànd waaye soo bëlee boolee ñaari nit yoo xam ne kenn ki dafa am ndox biddiwam ndox la keneen ki biddiwam safara la day fay rek du tàkk mukk da nga ëpp ba sonn waaye du tàkk moo tax sëy booy dugg da nga koo war a set des fois nga gis borom xaalis bu am xaalis dem takk nit matul ñaari weer ñetti weer ñi dàq ko ci liggéeyam soit mu ñàkk loolu yëpp ñàkk ko seetlu moom moo ko waral moo tax bala ngay dugg ci sëy wala yoonu tukki des fois nga gis ku bëgg tukki tukki tukki fekk sa wërsëg nekku ci biti nga dem tukki yàlla sotti ci ndox bu seddu nga wuti doo am nga bëgg këyit sax doo ko am ba mujjee ci kaso wala nga ñu ba max la nga delloo si waat mm-hmm. moo tax doomu aadama lépp lu muy fëgg daf ko war a seet mm-hmm. ala kulli haal mm-hmm. alors bu weesoo seet bi tamit gis nañ gis nañ fi ay butéel ak ay garab yi nga xamante ni da koy faral di defar lan nga ñu mën a wax si garab yi waaw garab yi nag am naa ay façon parce que bii moom ci ndoxu siti lay dox ak hémorroïde parce que dama lay wax ne la ndoxu siti moom mooy bànqaasu mboolem feebar yu nekk ci biir yaram bi bu jàppee sa serveur mooy dof yi nga gis nii ñu naan dañ laa liggéey dañ laa nangam fekk ndoxu siti moo la jàpp moo tax ndoxu siti ku ko am da nga kaa war a faj bii nag dañ ko def traite traitement bi euh, vingt cinq mille la da ngay am ñaari sachet par benn sachet ngay génnee mun nga ko yi nga xool parce que benn sachet bi butéel kii ndox bu tàng la lay la da ngay tàngal ndox. genre Lipton quoi. waaw comme genre gisoo ko dañ ko defaral yépp test ko. Hmm. defar kii bi ba mu yem. nga xam ne dosage bi yem na du la gaañ du am benn effet secondaire boo xam ne dina nekk ci sa biir yaram. Hmm. te tamit du nekk reen man du ma defar reen nee naa reen du rees. Hmm. parce que soo ko naanee moo lay indil ay affaire rein ak affaire yooyu. xopp laay defar walla doom bu ñuy lekk bi. bii da ngay tàngal ndox bu tàng nga sotti ko ci bu la neexee nga am lem nga suukaree ko ko walla nga suukaree ko suukar naturel ci kaasu ndékkeekaay. nga jël ko chaque jour benn pendant une semaine même bu sa wee yu ñuuloon sax macha allah day wér yaram buy xesan tamit gaaw na ci lool macha allah mm-hmm. ñu ko fiy jël yëpp dañ koy woote waat di ko laaj kon garabu ndoxu si tee ngi nii ak bu hémorroïde mm-hmm. waaw bu fekkee problème mu ngóora la nag mm-hmm. am naa ci butéel bi am naa ci tamit sunguf am naa ci tamit reen reen bi nag duñ ko gas newet noor ba noor lay am boobu nag actuellement nii jeex na fi parce que yàlla ji day taw rek ci lay yëngatu mooy garabu ngóora 18h ci ngoon ngay jël benn kuddu nga lekk ko soo ko lekkee incha allahu taala luy wàccee ngay ut waaye dootoo utati luy yéegal bii pour jigéen boo xam ne du yëg bànneex la ndax am na ñoo xam ne bu ñuy sëy dafay metti ngay dem ci hôpital yi wala ci pharmacie yi di wuti produit jaru ko bii ngay jël nga lekk ko bu boobaa dina la ubbiwaat en même temps tamit macha allah dina la may bànneex boo xam ne doo xam sax fan la lay bii nag jigéen ñëpp moom la ñuy wut mooy nopp la ñàppentaan lañ ko defaree am na yeneen composition si biir lu lu ñuy expliquer waaye ku ko bëgg booy ñëw nag da ngay indiwaale potu mintalaat ko rek ñu defaral la xaatim bi raxas ko ci defal la ci sa tur ak sa turu yaay nga yóbbu ak sa turu jëkkër ak turu yaayam dinañ la wax nan nga koy utiliser ñàppentaan lañ koy defaree góor goo ko defal macha allah du lu muy lekk parce que nee naa lekk moom. Mm. ci nopp du rees. ngay gis góor tëdd yeewul ñu ne dafa dee kër goo dem borom kër gi boo ko laajtee ñu ne la mère bee fi des nooba ko rey ñu ci ëpp bokk nga baal ma ci kàddu yi parce que nob bu fanaan dangay gis koo xam ne dañ ko jox noob na ko raxasee ko sa kanam wala sëlmoo ko wala jàppoo ko mu sàggan bàyyi ko mu fanaan mu sotti ko ci lekk kenn du ko lekk mu rees wante nag nopp moom ñàppentaan lañ koy defaree duñ ko def ci lekk am na beneen méthode bu ñu koy defee te mosuma ko jox client te amul résultat macha allah. Hmm. kon nag nooba ngoog ndoxu cité ngi fi tamit ak hémorroïde mm-hmm. képp koo xam ne daal am nga jàngoro boo xamante ni da nga bëgg mu set ci sa yaram mm-hmm. incha allah taala boo doxee ba yegg si fi mm-hmm. yàlla mun nañu boole sa euh, jàngoro mun na fi saafara woo lépp nag yàlla moo ko man comme ni ma ko doon waxee man nag loolu moo ma yàq parce que dañ naan ma Zeyda yow moom doo gaaw a am euh, clientèle ma ne leen déedéet yàkkamtiwu ma am clientèle tam maa ngi sant sax wax dëgg yàlla ndax international fu ne la may nit di wooyee wante nañuy wax dëgg bi mooy ñaan yàlla moom yàlla sunu borom moo koy nangu kon nag kii war a ñaan dafa war a nekk ku set ku sell koo xam ne it jaamu yàlla mooy mécceem ak lekk lu ko lew kon nag yàlla nañu yàlla defal tawféex ba lépp lu ñu dugal suñu loxo bi mu nangu ko ci nu mu gën a gaawee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa dañuy gis ni tamit ni entreprise dafa bëri ay xeexante si mm-hmm. jamono bi ñu nekk da nekk si entreprise nga am ay compétence da ngay loolu lan moo koy faral di waral sinon tam yeen jàngoro nga ci mën a indi. waaw xam nga tey nee naa bureau sëriñ si bu ñu amoon caméra surveillance. konoon mm. kenn dootul waxati. Mm. dangay ngay gis koo xam ne daraan salaamaaleykum su mi ay dàllam ñëw toog ne la mën daal. Mm. directeur bi laa soxla. parce que directeur bi fa nekk man maa ko dàq jàng. maa ko ëpp ay diplôme loolu wërsëg la. parce que mun nga jàng ba yëy say kayit. Mm-hmm. waaye wërsëg bi yàlla bind na ko lu jiitu sa dudd. nga ne naa déqati kii nga toog mooy waral accident yu bari Mm-hmm. parce que léeg nga jàpp nit liggéey ko pour mu jugee ko ci place mu génn oto mbëkk ko mu dee wala mu def accidenté mm-hmm. kon nañuy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb te yow tamit li ngay déqati noonu kooku jugee ko fi dem mm-hmm. yaa ngi koy fayeeku di ko lekk yow ak sa njaboota leewul la waaye nag su fekkente ne bëgg nga mucc ci loolu béjjënu bay tabaski lañ koy defaree waaw yooyu béjjën yooyu nag am na fi da nga koy jël xaatim bi nga dugal ko ci biir booy tëdd guddi rek nga koy takk ci sa wàllu ndeyjoor fanaanoog moom soo xëyee bu la neexee nga tekki xam nga sénégalais yu bëri bëgguñu takk téere mhm. waaye boo nekkee sa biir kër mën nga ko takk kan pendant 40 jours incha allahu taala kenn mënatulaa liggéey ba jàpp la bu soobee yàlla. Mhm. lan nga si wàllu bayre bi tamit ndax dañ siy yëngatu. waaw bayre nag macha allah fa la am nañ ci ay méthodes yu bëri yoo xam ne sangat la am naa fi benn leket boo xam ne ku bëgg a moom lañ lay defal pour nga falu. ku bëgg a folleeku it moom lañ lay defal pour nga folleeku ndaxte dama naan lasaraar am na ci yoo xam ne mën na fal mën na folli waaw kon nag Sénégal man damay wax ne bépp président bu fi nekk da nga war a jànq jànkuwanteeg sa as askan jege leen soutenir leen dimbali leen parce que am na fi ay boroom kurus yoo xam ne saa buñ dóoree kurus mu wàcc di nga wàcc neex mu naqar ak côté boo mën a wàccee suñ bëggee nga falu it mën nañ la dóorali per ba nga yéeg ci kaw pale ba am na fi président yu bëri yoo xam ne surprise la fi te xam nga ci dara te nit ñi ñoo leen kurusal ba ñu yéeg kon bu ñu yéegee tamit waruñoo fàtte seen kon képp koo xam ne daal gën nga ci Sénégal man de damay kurus waaye képp koo xam ne gën nga ci Sénégal yàlla na la fi yàlla teg te bu la fi tegee yàlla boo bew te yàlla na nga jege sa askan ci barke Seydina naa mu alayhi wa sallam euh, ñu gis ni tamit dafa bëri ay nit ñoo xamante ne ay woykat wala nit ñu siiw Euh, ñu tudd si kenn yàggul dara Dieyna Baldé di ab xale boo xamante ni coow da koo xaw topp lu bari jóge ci Job Isaac ñëw ci Bril mm. naka nga gisee mbir moomu waaw bu ma ko gisee si internet bi nag wax dëgg yàlla am naa lu ma metti mm-hmm. parce que Dieyna balde macha allah xale la mm-hmm. waaw xam naa ni bu amee ay vingt ans ci la yam mm-hmm. coow topp na ko nag wante ñu ngi koy ñaanal yàlla coow loolu yàlla na ko ci yàlla génnee balaa ñoo dugg ci ay détails am par yenn saa yi da ngay dem ci sëriñ wala nga ñaanlu ñu defal la bayre boo xam ne yow xale bi dëgëre bayre bu ba attanoo ko mm. mooy waral loo dugg muy coow loolu nag am nañ ci ay affaire yoo xam ne fay coow lañ koy wax ñun maanaam nit ki su fekkente ne lu mu dugg rek muy coow wala lu mu dugg dem kaso mm. parce que des fois nga am sa benn noon boo xam ne daf la iñaane wala mu soxore la benn xaatim bu ndaw lay dugal sa tur yow soxlawul sax sa tur yaay sa tur mm. kese lay am mu dugal ko ci kàmb wala mu def ko ci paxu garab foo jaar di nga dugg kaso kooku nag yàlla nañu ci yàlla musal mhm. waaye dafay fekk parewoo ci sa bopp da ngay ut say kaaraange en même temps tamit nga ut bayre boo xam ne dafa tolloog sa degré parce que am na ñoo xam ne bayre bukki la ñuy defar bayre bukki nag foo aw ñu ne la yépp yaa ngi nii coow rek moo lay topp waaye du am xaalis am na bayre boo xam ne nag da nga naan patt toog ci sa ruq ñu lay mu ngay mos mhm. waaw nee naa sëriñ moom bu fekkente ne da ngay wut ay xaatim rek fii ci Sénégal wax dëgg yàlla am nañ ci cosaan boo xam ne kenn du ko dindi muy ci reen muy sunguf muy ci xaatim wante bu fekkente ne bëgg na loolu mu dañ ci moom tamit ñu ngi koy tegtal rek aw yoon moo di ne day dem ñu fayal ko coow ak fu mu ko mën a wutee ji xaatim la boo xam ne bu ndaw la sa tur lañ lay dugalal ak sa turu yaay nga taal ko ba mu tàkk jëppit nga sotti ci ndox mu fay kooku moom macha allah yàlla may nañu ci waaw bu fekkente ne bëgg na mu dañ mën nañoo ñëw seet ci ñun ñu jàppale ko ci bu ko neexee tamit mu dem ci yeneen sëriñ waaye moom faw mu dindi coow ci boppam mm. ndax coow topp na ko te xale la coow topp na ko yàlla na ko yàlla dindil coow yooyu nag nekk ci yaramam ci barke mm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. alors numéro téléphone baa ngi noonu ah, mën ngeen ko woo téléphone mi mën ngeen ko woo ci numéro yooyu di affiché ci baaru écran bi mi ngi fi nga xamante ni moom mooy unité cinq lépp li nga xamante ni euh, dafa soxal si sa dund sa ëllëg euh, moom da siy dox dalay ñaanal dalay seetal wax la lu dul dañ fu ne la koy woowee ci àddina bi Euh, lan ngay daanale yaay booy. waaw di nuyu sama mhm. taalibe yi nga xam ne mi ngi ñu ngi ci biti. Mhm. te di ma soxla guddi ak bëccëg. Mhm. des fois ñu woo la heure boo xam ne ay une heure du matin deux heures du matin sa fekk la ngay nelaw ñu sotti la problème yoo xam ne moom ngay fanaanoo ndaxte ku ne moodu moodu rek gis nga li ñu daj ci àll bi. nee naa ñoom dañu joxe seen dépense Sénégal te lekkuñu ci naanuñu ci di fay location wala ñu tabax kër te tëdduñu ci. kon ñooñu dañ leen a war a ñaanal dëgg la nag ñi nekk Sénégal war naa leen a ñaanal. ndax wax dëgg yàlla am naa fi ñoo xam ne li ma yëngatu muy socio sax dañ ma ciy jàppale social bi dañ ma ciy jàppale bu baax ndax pare yenn saa yi tamit maa ngi dox ci ay affaires yoo maa la ko doon expliquer léegi des fois nga benn malade bu ñu indil boo xam ne yaayam amul moyen papaam amul moyen nga war ko yóbbu hôpital parce que du garabu sëriñ moo ko war a faj am naa si ay nit yoo xam ne ñu ngi ma ciy jàppale bu baax ci côté boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa bëgguñu ko tudd seen tur waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk seen wërsëg ndax Sénégal damay wax ne am na ay nit yu baax yu fi dëkk ñoo xam ne ci loolu rek la ñuy dox yal na yàlla dimbali leen te kàttanal leen te may leen alal ju bari yu ñuy jox nit yi yokk seen euh, wërsëg yokk seen daraja waaye tamit di tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi fi indi sa soxla moo xam bitim réew nga nekk wala ci biir réew mi yàlla na yàlla faj sa aajo ba nga xam ne boo wootee sax bala ngaa jot ay ñaan wala bala ngay joxe sa xaalis yàlla na yàlla faj aajo boobu ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf tey euh, fi la ñu ñëwoon unité euh, 25 seet si woon ci ki nga xamante ni moom mooy Seyda Aram Diouf lépp li nga xamante ni dafay yëngu ci wàllu seet ak ñaan daf koy def boo leen ko seet see boo leen ko woowee également ci numéro téléphone yi euh, dina jëflante ak te xam naa ni macha allah di ngeen ci gis résultat di leen jox rendez ci beneen émission beneen gisee ak ma ci ak sama frère Dieng jaajëf.